ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعلهم في النار هدى وخيرا وكفا من عرف هدرا من عرف هدرا من عرف هدرا من عرف ودرا وأخرنا بهدهم ورنا بهدهم لوجهك وأخرنا بنا فنصرك واجعل جميع الإقوات ونصبي في رمة يوم تبار نصبي وتعلنا وكلم وكلم عما وهنا سعقدة الطفل فنوسا وحقلنا المكارم الأخلاق وأبلل المكارم الأخلاق وحقلنا المكارم الأخلاق ما طاب بلا تقاق وتنسق ما يواقي القدمين وتنقب لنا من وجود ربنا هل هل بلا تنافي والله ولا تدابري ولا تباخدي ولا تنافري حتى نصير مسلمين خاسرين والمؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا واغفر لنا وعافنا بعافيه تكون في دارين غير عافيه وهم يود وقفا عن مصلحه ونجيكم مصلحه واولنا يا رب الله ونصر كل مسلم ونصر حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيامة وغدا يوم القيامة جاه خير من صفى أمراض وحدنا المرفوض والأغراض محمد طبيبنا محمد طبيبنا رحمه ومراد والصلاة والسلام عليه المصطفى كل دين فلا تفارق المطلوب شفائي وكما لي في المسائل وسبا ورزقت مصطفى وفرق بسم الجناح والجاي مصطفى صلاح عليه ربنا كل صفاء سبحان ربك رب العزة عما يشرفون وسلام على المرسلين والحمد لله والحمد لله Serigne Saliou Mbacké bi ñee waayu kaneen deesu la gëm digam kaneen sa waay du xaadi jëm faneen su diina doy na xarnu salla alayhi laasi ku sopp Sëriñ Saaliw loxo ca kaw salla alayhi laasi fi jaari xaddama تسلما تضخما يحوى ويختار ولا لمن باغتساس خطوا سرابت لأنهم للورى سادات أخيار وصابي قريما تسقي ننتقل لسلاح وصابي قريما أحران أم سباغ إصبهد أم واجر والبحد أنصار لهم لدى الله تخصيص بما سبيروا كمن نجوم لقوم إذ جزار لهم لدى الله تنويم سوى يلالا إسايا الكل الأدناس وأقدار بمسئل الخلق والكسف سنجار لقجك بمسئل الخلق والإيمان قد جبيل ترى وقد الذي أغلقه كفار yoneen du ànd ak càngaay yoneen bi ku sopp Sëriñ Saaliw doo dem naari ku sopp Sëriñ Saaliw doo dem naari yàlla sa saliwa ku bëgg a màggali Porokhane jugal taxaw màggal Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou mbale murid dil si naa di sant rabbana moom ki ma wàcc ma àdduna jébbal ma Serigne Saliou mbale murid yi dil si naa di rabbana moom ki ma wàcca àdduna jébbal ma sëriñ saaliw bale muridi dil sina di sant yàlla rabbana moom ki ma wàcca àdduna jébbal ma sëriñ saaliw fi laay sa samay waxiin ci laay dala samay jëfin ak barke Serigne Saliou ana waa kër Serigne Saliou Mbacké def la nii nu magal sunu jàmbaar ja amul maraam bismillah yéen murid fi laay dala waxiin ci laay dala samay jëfin ak barke Serigne Saliou nun sant yàlla war nanu moom ki nu bindu boole noog ci jiiru bani Aadama boole ti maag Serigne jàpp na woon na sun borom mu def ma maam am borom may root di jaay paal juróom te dunu ma jox Serigne Saliou Serigne Saliou ba mu def ma gëlëm bu rëy a fiyeem buy saf xorom fi ba di teggi Serigne Saliou nan sant yàlla mi hakim moom ki ñu def ci yërmandeem ci xeetu Mustafa al xaritu bàyyi Sëriñ Saaliw alfu salaatin wa salaam alayhi bil alil li fekk murid nekk ndaam di soppu bàyyi Sëriñ Saaliw mënoon na maa def nasaraan ma weddu mboolem alquran mbate yoot buy jabaraan te kon ma Sëriñ Saaliw sàccante fii yal na nu yàlla dimbali ba man de daal di àggale cant gu jëm ci Serigne Saliou Serigne Saliou sant ko sax da lott laa na yàlla rabbana xanaa dama yéene mole murid yi man di sant yàlla rabbana moom ki ma wàcce duna jébbal ma Serigne Saliou